dara ngay sol incha allah wala lu simple dara kaalawu <laughs> dara lay doon sama CCA ah, ah. ah. laay def de ndekkee say croissant naan sa café mi ngi noonu def ceebu yàpp wala ceebu jën non non non mooy mooy euh, dem làmb nag mm. euh, toujours euh, li may wax soxna si mooy na ma defal mbaxal mu tooy mbaxal lu yàpp bu tooy ah, bu tooy waaw mbaxal lu yàpp bu tooy parce que mag du lekk lu wow ah mag du mag du lekk lu wow de. ah d'accord te boo bëggee gudd fan xam nga nooy def. Hmm. bu guddee na dugub di fanaan ci sa biir. boo ko defee doo gàttu fan. dugub dugub. waaw nay fanaan ci sa biir. loo reere boo reeree caakiri laax yàpp hmm. sax lekkal laax. Hmm. wala nga eh, cereeg meew. di nga bu dugub dee fanaan ci sa biir. billaahi doo gàttu fan. dégg ngeen loolu. <laughs> Ibrahima Ndiaye ñu ngi lay gërëm bu euh, baax. di la sant euh, euh, mbégte trop chaque fois. maa ngi lay sant toog yow. maa ngi lay sant parce que yow ñëw nga sama kër. Mm-hmm. ñu def interview boo xam ne ba nag ne nit ñi dañ ma koy laaj. Mm-hmm. parce que ji nga wax. Mm-hmm. li muy neex neex neex neex xam li ngay wax ak ku gën te xam nga li ngay wax xam nga ni ngay waxee parce que wax dañ koy wodd wax dañ koy wodd wax bu defee taati neen rek kenn du ko déglu. ah te toujours da ngay wodd say wax. doomu aadama nag bu dee wodd wax day accidenté de. di nga accident wax bu euh, bu amee. Hmm. ba ñëwoo police mu constaté. bu hmm. verdict ba ñëwee xam nga lu muy lu muy doon. Hmm. rëccu ku wax lu bon rëccu ku wax lu ñaaw rëccu. moo tax yal na la yàlla defal jàmm. amiin defal ko borom kër gi ak yi fi nekk ak ñëpp. jërëjëf rawatina Pam di ko ñaanal yàlla moom itam ndax doomu aadama dinañ ko booleeg alalam toroxal. dom adama nañ ko booleeg dara jam toroxal mm. mais doomu adama kenn du ko booleeg yaram toroxal moo tax yàlla nañ yàlla may yar jërëjëf jërëjëf kontaan nañ mu doon seen émission waxtaan waxtaaj tey moom ñu amoon mbégte bu baax pour suñu grand retour dellu siwaat bu mag bi ànd ak Ibra Ndiaye ñoo ko bàyyi te yaakaar naa ni yéen ñi ñu seetaan am ngeen si mbégte ndax am na xam-xam bu bari boo xam ne jëlee nañ ko ci waxtaan bi ñu waxtaan ak moom dinañ topp nag li nga xam ne moo di làmb ji tey si ngoon suba si suba suba si ngoon ba lënd ca werante ya lépp incha allah public dina ko topp maanaam combat Ama Baldé ak Modou Lo lay leere jërëjëf ci public SN TV jërëjëf ba suba